jërëjëf euh, maa ngi tudd Ousmane Ndiola ju euh, di chargé ak conseil en communication du ministre maire Matar Ba ñu xam ci l'incontournable du DAGE du Ngom Niang euh, tey nag vraiment dafa nekk bés boo xamante ne bésu cant la parce que il faut ma gërëm ñi nga xamante ne tey ñoo jàpp ci journée bi gërëm ñi nga xamante ne tey ñoo am confiance ci man ba tuddee ma bés bi muy sama première parrainage aussi mais aussi di souhaiter sama bopp un joyeux anniversaire parce que tey sama bésu anniversaire la di ñaan yàlla fekk ko ay at yu bëri di ñaanal ñi nga xamante ne tey ñoo ma tuddee bés bi euh, yàlla may leen euh, li nga xamante ne ñoom lañ bëgg gide leen ci pas yi nga xamante ne ñoo gën a baax c'est une occasion aussi pour moi de remercier le ministre maire Matar Ba euh, ci confiance bi ma jox à mairie Euh, nekkul alal nekkul aussi li nga xamante ne moom la def ci journée bi mais il m'a permis tey euh, euh, de faire beaucoup de choses au niveau de Ndiaye Ndiaye par rapport à la municipalité par rapport à la fiscalité aussi parce que tey boo xoolee boo jóge woon Ndiaye Ndiaye a wut kayit da ngay def presque mille deux cent parce que il faut nga def deux aller retour maanaam dem déposé dem jëli mais tey ministre maire Matar Ba permettre na ma au moins loolu noonu ma wàññil ko waa Ndiaye parce que képp ku fa déposé boo ñëwee man dama lay naan après dinaa la ko indil il suffit nga jaar kër ga nga jël ko loolu rek moo moo moo gën alal ji nga xamante ne moom la waroon di yëkkati di ma ko jox. bon sentiment bi ma am mooy euh, jàpp naa ne waa Njaajaay tey euh, boole na ma ci seen bopp parce que lii c'est pas facile ay nit tànn la parmi tant d'autres ñoom ñoo xam ci yan critère lañ basé wu pour euh, jox ma tey tournoi bii nii. mais mooy li ma wax au au début maa leen ci maa leen ci jaajëfal bu baax ci loolu parce que c'est pas facile man kese nekkuma ci kooñ bi loolu nag dama koy rafetlu bu baax waaw parce que def naa ci sama doole mais comme li ma wax léegi am nañ ci bëri ñoo xam jàpp nañ ci ku mel ni le ministre Mame Adama Ndour jàpp na ci bu baax mais tey aussi occasion la encore pour ma remercier ki nga xamante ne mooy sama mentor muy le DAGE Mamadou Ngom Niang parce que tey su demee ba am connaissance bi ci politique bi su ma demee tey ba am ñii leader yu Fatick yëpp nga xam ne tey ñoom ñëpp a dugal seen loxo yaakaar naa ne ànd bi may ànd ak Mamadou Ngom ñaa moo jur lii donc kooku noonu wax te waxo ci moom donc dama koy naan rek mention spéciale ci moom donc moom aussi mu gën a góorgóorlu ci lancé bi mu nekk parce que politique yombul ñu ngi koy accompagner ñëpp bëgg nañ ko mais aussi euh, mu gën a góorgóorlu daal pour euh, jëmal politique am ci kanam bon sama dernier kàddu mooy d'abord damay remercier sama jabar bu baax parce que politique yombul des fois damay ñib si fii ay trois heures du matin ay quatre heures du matin di te mu muñ ko donc euh, vraiment mënuma jël kàddu wax ci kanamu télé bi te euh, waxuma ci moom remercier waa Njaanjaay bu baax parce que teyoo tey boo xoolee sama téléphone foog naa chargé naa ko ñaari yoon ñii dañ lay woo ci affaire parrainage bi ñii di la souhaiter un joyeux anniversaire di remercier nag ministre yi nga xamante ne ci laa bokk muy tele boo xamante ne leader yëpp ci war a def seen doole parce que lépp lu nekk Fatick da koy siwal lépp loo xamante ne Fatick waaye ñu ngi ci boo demee Mindiss TV da nga ko fay fekk donc c'est une télé boo xamante ne ñu ñëpp ko war a soutenir jàppale ko ak nu mu munti demee ñu ñëpp dañ cee war a def suñu doole jërëjëf. Chers camarades, chers chaleureux invités, bonsoir. Je réponds au nom de Salou Ndiaye et je suis le secrétaire général de l'association. De par ma voix, mes camarades et moi aimerions adresser un message de remerciement aux parrains. Permettez-moi d'abord de faire une brève présentation de notre association. Ayant comme nom Association des jeunes engagés et unis de Ndiaye, elle a été créée pour deux principales raisons. D'une part, unifier toute la jeunesse du quartier sans distinction des genre. D'autre part, initier, mais aussi participer à toutes les activités pouvant mener de l'avant notre très cher quartier. Ainsi, pour mener à bien cette mission, nous lançons un appel collectif à tout le monde en, en vous demandant de bien vouloir nous rejoindre. La porte vous est grandement ouverte. Maintenant, nous disons un big merci à Monsieur Ousmane Diouf, plus connu sous le sobriquet de Njola, une personne vraiment formidable, dotée d'une humilité et d'une serviabilité hors pair. Sans lui, nous ne serions pas là à assister à la grande finale de ce tournoi de football, car il n'aurait jamais eu lieu. En effet, au-delà du fait d'avoir accepté d'être notre parrain pour cet événement, il nous a assistés de par des conseils qui nous ont été d'une très grande utilité. Des applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci pour le soutien financier, matériel, mais aussi et surtout moral. Par la même occasion, nous tenions à vous souhaiter un jovial anniversaire. Que cette nouvelle bougie soufflée soit une parmi tant d'autres à venir. Je ne saurais terminer ce discours sans pour autant adresser des remerciements aux parrains du tournoi de lutte ici présents. Monsieur Alunian, merci à vous aussi pour l'aide apportée. Que le bon Dieu vous le rétribue au centuple. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 21h au gala de lutte qui se au niveau de la grande place, communément appelée Ndoukhourne. Encore, merci à vous, chers parrains. Ndiokondial, Ndiokondial, Ndiokondial.